achara junj na achir junjal lay des te fekk na noonu la tëggoo kon jàpp ne bu leen baragee lu matati afhil waaye cosaan moom la woon dañu ko wëlbati rek comme ñëw ci noonu wax su woon na nga ko askan li si waaxu jëm ci kudul afala kal mudaarix ni ki mudaarixu ma dil jasam mooy boroomu jasam allësi ma nga xam ne uxtu si la dogeef na awaluhoo njëlbeenam nee na nag bu fekkee du afala da nga ciy tëgg di ngay tëggi mudaarix ba mu jekk nga def ca arafu jasam jasam ko lu war a dagg-dagg ba set nga daal di dindi arafu jasam wa ak arafu mudaarix wa la fa sus nag bu fekkee nekkul masque nekk say boo tudd ko xam ne mooy lamar ja niki kaana nekk na boo ci bëggee tëgg lamar da ngay def yekkoonu dana nekk soo ko jasameeg lam muy lam yekkoon nga dagg waaw ga ndax ànd bi ci kanamam mu des lam yekkun nekkut gannaaw bi nga daggee ci war a dagg bu set nag léegi boo dindee lam ak yaa la fa sës bu fekkee du masque nekk say boo tudd ko xam ne mooy lamar boo daggee lam dagg yaa kun moo fay des kon kun nekk lamar jàngoo ko xaala yaqulu boo ko jasamee lam yaqul lay doon nga dagg waaw ga mu des lam yaqul waxul boo daggee lam dagg yaa mu des xul waxal lamar jàngoo ko baax jaay ne yabiixu dana jaay lam yabiix lay njëkka doon nga dagg yaa ja mu des lam yabiix jaayut nga dagg lam dagg yaa mu des biix jaayal noonu lay mel yooyu mu wax yëpp nag gannaaw da nga daggee lam ak yaa la fa sës nekkul masque nekk bu ko doonee moom lay ba wax wasil na nga jokkale saakeen aju sukkoon kaana joj nekkoon na muttasilan di aju jokk bil mahdhufi ci lañu asaf jokk ko bi hamsil wasli ci am sa waslu mun kasiran mbir mu muy aji kasarawu moom am sa gi gannaaw boo daggee araf mu daarihun ak lam ja fu sës bu fekkee mas ak néeg la da ngay di am sa waslu tàmbalee ko ndax arab yi duñ tàmbalee baat mas ak nekk ni ki shariba naan na boo ci bëggee lamar da ngay def yashrabu boo ko jasamee muy lam yashrab boo daggee lam dagg yaa ash moo fi sës masque nekk ngeen di am sa waslu kasara ko ne ishrab naanal xalima xam ne yaalam dana xam boo ne lam yaalam xamut boo daggee lam dagg yaa a moo fi des ngeen di am sa waslu kasara ko muy yaalam xamal istaxraj yastaxraju noonu lay mel soo ne lam yastaxrij boo daggee lam dagg yaa as moo fay sës nga ni am sa waslu kasara ko muy istaxrij am sa waslu boobu kasara mooy cosaan moo ci gën a bari waaye am na benn béréb bu ñu ko war a dàmmee te sañoo koo bañ muy wal xam su xam saga damma dàmmeef na ko xabla lusoomi dammi ci njëkk warug dàmm bu dee sulaas yi boo xam ne boo ci tëggee mu daal yi xëy noom day dàmm kon boo ci tëgg lamar te mu soxla am sa waslu am sa ba danga koy dàmm léegi nazara xool na yanzuru lay doon kon boo nee lam yanzur ba nga dagg lam dagg yaa nga di am sa da nga koy dàmm ne unzur xaraja yaxruju lay doon nga xam ne xëy na day dàmm ca mudaarihuma te sulaasi yi la kon nag boo nee lam yaxruj nga dagg lam dagg yaa nga wax uxruj génnal dàmm am sa ga yépp noonu la ñuy mel wa nax wuxsi lu mel ni uxsi xareel yow jigéen ji xat xubbi la nanga wax na ko bi kasarin ci kasara mu shammi dammi bi dugguñ fóonul damm su fekkee tulaasi yu ba xëy nam dafa daan damm waaye nag danga caa jokk yaa ul mu xaatabati maanaam danga cee waxante jigéen di ko digal ba tax nga jokk ci yaa nga xam ne faraan damm léegi dafa kasara kon nee na bala neexee am saga nga bañ koy maas maas ak dàmm bu sotti te xaw koy jaxasee kasara xam nga xasaa xare na yaxusoo dana xare fekki góor ngay digal moom uxusu xareel lay doon daxaa woote na yadduxoo dana woote bu fekkee góor ngay digal udduxu wooteel lay doon waaye nag bu fekkee jigéen ngay digal moom xayin boobu dàmmoon day soppi kasara ndax yaa di nga ci yokk moo koy taxa kasara kooku la wax ne ba tey bu la neexee am sa waslu ko boo ko indee nga dàmm ko dàmm gu wér bu la neexee itam nga fóonal ko te mooy jaxase ci sa waxin kasaraak dàmm waaye say boo jàpp rek dàmm gi mu far la noppal rek jàpp ne danga koy dàmm rek ne ba nga ci xutuk jigéen muy benn rek wa shadda jàdd na bil xaf fi ci asaf ga mur mur digleel waxus ak xus jàppal wa kul ak kul lekkal neena amara digle na axasa jàpp na akala lekk na na nga ko tey bu baax daa munu ci fit ndax boo toppoon yoon wi nga waxoon boo ko defee ya muru ya xusu ya kulu da nga koy jësa muy lam ya muru lam ya kul lam ya xus soo daggee lam la fa sus ne nekk masque nekk muy am sa boobu fa des nga war fa andi gën am sa muy am sa waslu te dàmm ko wal biti am sa gi fi nekkoon mu bijji ko kon u xus mooy doon cosaan nga def am sa ñaareel ga mu war ko bijji muy oo xus u umur la war a doon ci cosaan nga wal biti am sa ñaareel ga mu nekk waaw ndax mu bijji kee muy war a nekk oo mur u kun la war a nekk boo toppoon cosaan nga wal biti am sa ñaareel ga mu bijji am sa bu njëkk yi muy oo kul waaye loolu kenn du ko jàng day jekki-jekki dagg am sa ga nga xam ne moo nekkoon ca faag baat ba muy cosaan ca baat ba bu noppi nag jàng la fa des day jekki-jekki jàng mur digleel xus jàppal kul lekkal rek xam ne kon dañoo dagg am sa ga nga xam ne moo doon faag baat ba la fa des nag ñu tudd ko noonu rek muy lamar muy mur xus kul te boo toppoon cosaan oo mur oo xus oo kul lay doon waaye kenn defu ko ko wa fashaashiw na wa amur wa amur amara digle ne moom miin nañ bu fekkee waaw ataf jiitu na ko ñu far andi am sa ga nga xam ne moo cosaan woon ca baat ba duñ ca boole am sa waslu sax waaye danañ andi am sa ga nga xam ne moo nekkoon ci faag baat ba daal jàng wa amur gis nga ci alquran wa amur ahlaka bi salaati boroom saraa bi dane su ko waawul xatafi jiitoo waaye daa mel ne waaw ga nekk waawul xatafi ak mu nekk waawuk istinaaf ñoo ci yemoo rek moom daal mën nga ne rek bu xasee ànd ak waaw dañuy matal baat ba ci kaw indi am sa ga fa cosaanoo de duñ ca boole sax am sa wasul nag moom ci bu dee ci amara noonu ci noonu lay def muy wa amur wa tatmimu xus matal xus wa kulan ak kul mustandar lu ñu néewlu la xus ak kul moom boo jokkee waaw itam mooy bu ñu àndee waaw itam néewaana nga delloo si am sa ga fa cosaanu da nga leen di bàyyi noonu rek wax wa xus wa kul loolu laa bari waaye néewaana nga gis wa xus ak wa kul ngir ne rek waaw ngi fi déedéet kooku daal moom ci wa amul rek lay bare baabu abniyati asmaa'il faa'iliina lii mooy buntu tëggi ismu faa'il ya wal maf'uuliina ak ismu maf'uul ya ismu faa'ilin ismu faa'il joxe la defeef na ko te wasni faahilin mu mel ne mandaxim faahilin mina sulaasi yi tukkee ci sulaasi yu ba allasi ba nga xam ne maa wasnuhu déet mandaxeem faxu la muy faxu la sulaasi boo xam tëggoowul faxu la yaar la benn muy faxa la wala muy faxi la yooyu yaar la ne siiw na ñu tëgg ci ismu faahil mu doon faahilun danga koy teqale bu dee ci faxa la moom muy jàggati ak muy laasima ci yem ismu faaxilam moom faaxilul xiyaasu na ci rek moom bu dee ko mel ne daraba mbaa akala mbaa xatala dañuy jàggati faaxilun xiyaasu na ca xatala xaatilun daraba daaribun mu yooyu bu dee laasi min noonu la ni ki jalasa toog na jaalisun xaxada xaaxidun ak lu mel ne daxala dugg na daaxilun ak xaraja xaarijun kon daal jàppal ne faxala moom mu jàggateeg mu laasima ci yam isum faaxil ma faaxilun xiyaasu na ca soo jàllisee ci faaxila nag moom bu dee jàggati la ca faaxilun di xiyaasu ni ki shariba nga ne ca sharibun day jàggati samiha nga ne ca samihun xalima nga ne ca alimun jahila nga ne ca jahilun laqima tibb na nga ne ca laqimun loolu mooy bu dee jàggati moom faaxila bu dee laasim nag moom daañu ko andi ci kanam nga dégg wasiixa tëggeef na ismu faaxil minhu ci faaxula te saxalin nit ki saxalin bii firi aji yomb wal dariif ak dariifi bii firi aji ñaw faxula mais mu ne woon maa was nuhoo faxula ca la dellu kooku nag yaar yi gën a siiw ci moom ci ismu faaxil mooy faalun ak faxilun ki saxula yomb na al amru nga ne faxoo moom saxalun aji yomb la muy faalun wala saxaba jafe na nga ne faxoo moom saabun aji jafe la wala daxuma rëy na nga ne faxoo moom daxmun aji rëy la wala shahuma ñaw na xol nga ne faxoo moom cheikh mun aj ñaw xol la fahilun bari na ca lool ne ki daru fa ñaw na nga ne ci darifun karuma nga ne ci karimun ba la uma soxor na nga ne ci la imun xal bu sabon na nga ne ca xabiisun ku bare bari la wax la ci yenn yoo xam ne da nga ko ci dégg waxal yëkkoon amaana mu nekk afala di afala aw faxaalan wala muy faxaalan aw faxaalan wala muy faxaalan xëy na nga gis ko moom isum faaxili faxu la mu tëggoo afxala léegi gis nañ xamul xa dofe na ñu ne ahmaqu aji dofe la kooku afxalu la wala xaru xa dofe na araju ñu ne faxuwa axraqu ba tey aji dofe la kooku afxala la mën naa nekk faxaalan ni ki jabu na ragal na ñu ne ci jabaanun aji ragal kooku faxaalun la mën naa nekk faxaalan ni ki battu la jàmbaare na ñu ne battalun aji jàmbaare la wakal furaati ak niki furaati bi fi aji neexi ndox kooku mooy fuhaalun faruta neex na almaaw ndox ma fa huwa furaatun kooku fuhaalun la mook shaju xa jàmbaare nga ne ci shujaahun aji jàmbaare ñooye moo waa infrin ak infrin bi fi aji jommale kooku mooy fi'lun xëy na nga gis ko ja niki xafura jommale na arrajul waaji ñu ne fa huwa moom xifurun aji jommale la wal xasoori ak xasoori bi fi aji ñàkk bànneexu booloo aji ñàkk bànneexu sëy kooku mooy faxoolun xëy na isum faaxili faxo la mu tëggoo faxoolun ni ki xasuratil maratu fahiya xasoorun wala xasuratil naqatu fahiya xasoorun kooku faxoolun la wa xumrin ak xumrin bi fi aji dofe kooku mooy foolun xamura arrajulu waaja dofe na faxu moom xumrun aji dofe la kooku foolun la xaaqirin ak xaaqirin bi fi aji njërmeel njërmeel mooy jasir kooku nag mooy faaxilun xëy na nga gis ca faaxilun moom xaw na caa feeñ tuuti ci ay béréb béréb ki taxura laab na ñu ne ci taaxirun ak xaquratil maratu jigéen ji dafa jeesir ñu ne ci xaaqirun aj njërmeel junubin ak junubin bi firi aj janabawu kooku mooy fuxu lun januba arrajulu fuxu wa junu bun muy fuxu lun wa mushbihin ak aj nuru samila samila bi firi màndina samila moom faxila la waaye dale wane la xëy na nga gis ismu faaxili faxu la mu tëggoo faxi lun niki fàttu na xellu na daañu wax fàtti nun aji xellu naddu sa ñaw na arrajul waaja daañu wax faxu moom nadi sun aji ñaw la mu ñëw ci faxila bu laasim ndax daa waxoon faxila buy jàggati mook faxala ñooye moo ci ismu faxil wasiixa tëgg yëf na ko min laasimin ci aji laasim mu waasinin juli aji màndaxoo faxila faxila bi was ni ci màndaxeem ma ka shajin niki shajin bi fi aji jàq wa mushbihin ak aji nuru wa mushbihin xajila xajila yàkkamti na faxila bu dee laasim am na yet tëgg yoo xam ñoo ci gën a siiw benn ba mooy nga tëgg ko faxilun nga xam ne mook mook fiil maadi ma ñooy bokk tëgg la ñu wutee mooy fiil maadi da nga koy binaa ci fata tëkki nga di ko ihraab rek ni ki xajila yàkkamti na nga ne ci xajilun aji yàkkamti fariha bëgg na nga ne ci farihun aji bekk shajiya jàq na nga ne ci shajin aji jàq ku mel ne shajiya jàq na ñu ne ca shajin wala jawiya jàq na ñu ne ci jawin faylun la tëggoo waaye nag ràgg gam ràggee yaa te waaw ngay dëgg rek bu fekkee ne baat bi taarawut laawut moo koy tax a nekk shajin ak jawin de su baat bi taarawoon wala mu daafu rek nga gis yaa ba daal di ñëw ki boo ne ashaji wala al jawi wa sësi ak sësi bi fi aji kekkee sësu moom dafa tëggoo faalun waaye jublu ko wàññiwaale ngir nga bere ko daa bëgg a wane ne su fekkee ne xëyinu baat ba dafa nekk am sa xëy na nga tëgg ci faxilun ba noppi boyofal digg baat ba maas ko maas ak nekk ni ki sha'isa kekkee na al makaanu béréb ba béréb ba sha'isa al makaanu sha'isun mooy cosaan waaye xëy na ngir woyofal ñu wax ko sha'sun sha'sun muy faalun kon kooku bul ko wàññiwaale da ngay jàpp ne rek fahilun bii nga tool ci di ko wax boo ko tëggee ci koo xam ne xëy na baat bi daa nekk am sa xëy na nga woyofal digg baat ba dañ koo maas kasara te maas ko maas ak nekk wal ashnabi ak ashnabi fi di aji am ndoxum bañ kooku mooy afxalu fahila bu laasim afxalu bari na ca lool lool lool shaniba am na ndoxum bañ ashnabu bayida weex na ab yadd sawida ñuul na aswad xadira wert na axdar safira puur na rose asfar li ëpp ci couleur yi moom noonu la ñuy mel dañuy tëggoo faxila ba noppi seen ismu faxil tëggoo afxalu waaye nag bu bëggee andi jigéenam moom doo ca def taa da nga koy tëgg fanlaaw ni ki ab yadu aji weex bu dee góor bay daaw mooy nekk jigéen ahmar aji xong bu dee góor xamraaw mooy nekk jigéen asfar aji puur bu dee góor safraaw lay doon axdar aji wert xadraaw loolu bari na lool moom ci tëggi xeeti couleur yooyu le ak xeeti laago yi mel ne xawira patt naag yu mel ne yooyu axwaru aji patt ca góor ga xawraaw aji patt ca jigéen ja yooyu bari nañ al jëtalaani ak jëtalaani bi fi aji bég kooku nag mooy faxlaan kooku bari na ci faxila bu laasim jëtala bég na jëtalaan xadiba mer na xadbaan sakira mandina sakraan xatisha mar na xatishaan yooyu bari lañ kon jàppal ne faxila bu laasim yett yi la am faxilun ak afxalu ak faxlaanu yett yaa ngoo ko su ma taxat yi ëtti topp amaana mu dikk kafaanin mel ne faanin bii fi aji jeex wa shibhi waahidil buxalaa ak lu mel ne mufratum buxalaa buxalaa day firi way nay nekk jamu taksir mufratam mooy baxiilun xam lan ngir yan xalaa xëyri yi ci kudul moom li nisbat ngir askanonte ka xafiifin niki xafiifin bii firi aji woyof tayibin ak tayibin bii firi aji teey ashiyabin ak ashiyabin bii firi aji bijaaw fi sawxi ci tëgg ga min faxala mu tukkee ci faala dafa wax ne faxila bil laasim xëy na ismu faaxilam ñu def ko faaxilun niki fan yee jeex na gis nañu def ko faanin faanin faaxilun la tëggoo waaye nag ràgg gam ràgg yaaga dagg moo tax mel ne lu manqué faaxilun moog boo ne woon qaadin aji àtte wala raamin aji sànni ak mboole mi demee noonu rek teewulee la tëggoo faaxilun bu ñu taara woon nag mbaa ñu daaf yaaba dal dellu si doon ci sax léeg-léeg du mën a maas ni ki al xaad yi ak assaan yi ak alfaan yi muy wéy bérébu nasab ba rek la ihraab bi feeñ di ci ajiboo daayen la gis nga itam xëy nañu def ko faxiilun ndax baxila nay na dañ koy def faxiilun muy baxiilun loolu nag moom amul takk-takk yan moo koy waral maanaam jël bi yemale ko keneen koo xam ne ñoo bokk max naa bay benn ci jege wala ñu soree ba safaanoo rek léegi yaari fexal daal dañuy bokk max naa bay benn mbaa ñu soree safaanoo ba nga seet nañu def kee nga def ko kii ndax dañoo seet fan yee jeex na mu mel ne zahaba dem na ndax xam nga lu jeex ak lu dem dañoo nuroo lool lool ñu seet ne zahaba zaahibul la war a doon ñu far def fan ya muy faanin aji jeex kon nañ ko caayan ba tey bax yi la nay na faxi la buy laasim la dañ koo gis mu yemoonteeg la uma soxor na ci nuru ay maxnaa ñu gis ne la uma faxula la te day nekk la imun aji soxor ñu far def baxi la nay na ba tey baxilul aji nay loolu na moom daa yaatu am na ci faxala da nga gis faxala boo xam ne duñ ko def faaxilun ba waran doon dañ koy def lu mel ne faxilun ni ki xaf fa woyof na xaf fa woyof na faxala la daa war a nekk xaafi fun nga jël faagee sàdd ko ci faagee muy xaaf fun waaye kenn du ko faral def dañ koy ëpp def faxilun muy xafi fun aji woyof lu ko waral yen dañ ko yen ci sàqu la diis na xam nga sàqu la diis na faxu la la te saqilun lay doon aji diis gis na xaf woyof na mu safaanoog moom ba boo xam kee mu safaanoog moom ba boo xamee kee xam kee ñu far leen yemale daal jël xaf wa def ko ne saqu la ba tey taa ba tey na taa ibun aji tey la war a doon taa ibun tey dana koy doon waaye nag daañu ko def tayyibun aji tey fekk tayyibun tayyibun la woon mu tëggoo fahilun jël yaa bu njëkk bi sàdd ko ci ñaareel bi muy tayyibun waaye boo gisee ñu def noonu rek dañ ko yen ci xabu sa bon na xam nga lu bon ak lu tey dañoo safaanoo yaari max naa yu safaanoo ñu seet ne xabu sa bon na faxilun lay doon ñu far def taaba noonu muy tayibun jël yaa ñu jël yaabee sàdd ko ci yaabee ba tey dees na wax ne tayibun da nga koy peesee fay xilun fay xilun ngir jàpp ne yaa bu njëkk bi nga xam ne moom maas maas kër nekk mooy ndool leen te kon daa war a feeñ ci balaas bi doon yaa nga wax kon fay aylun ashab aji bi jaaw itam shaaba bi jaaw na faxala la daa war a nekk shaibun aji bi jaaw muy faahilun tey daañu koy def waaye nag daañu ko def itam asiyab muy afal su boobaa dañ ko yen ci bayida weex na xam nga weex ak bijaaw dañoo nuroo te bayida ab yadu lay doon muy afalu kon shaaba bijaaw na mën nga koo def ashiyabu muy afalu tax nuróole ko bayida weex na yemal leen ñoom ñaar kon daal jël fi xal bi yemale ko moroom ma ngir ñu bokk max naa bay benn mbaa ñu soree lool lool ba safaanoo dana andi baat nga waroon koo jox ismu faaxil sàngam nga bàyyi ko jox ko beneen ndax nuróole ko tam bokkal ci max naa ba ñuy benn mbaa ñu soree lool lool bay benn wa faayilun faayilun saalihun aji yiw la lil kulli ñel bépp sulaasi yu in xusida ndeem jubloof na alxudoosu sosug maxnaama ndax mu xawli ko noonu sox ja nga ne zaaki jaazilun aji bég la jadalan bég xadan ci ëllëg nee na sulaasi yu bu ne mën nga caa tëgg faahilun mu ismu faahilam bu fekkee ne dangaa bëgg a wane ne maxnaa moomu daal daa jekki-jekki bette rek xew waaye day rek xew-xew bu xew nga di ko nettali mel ne ngay wax ci ku faatu nga di ko martial ak yu demee noonu kon man nga caa tëgg faahilun ci ku mën doon ci sulaasi yi mel ne nga ne zaydun shaajihun am si sayid day jàmbaar la woon démb nga xam ne chajuha faxu la la waaye nga tëgg ko faaxil wane ne say daal démb dafa jàmbaare muy lu xew lu bette waaye waaye ak njàmbaare du jikkoom wala zaydun jaabinun al yawma say day aj ragal la tey jii xam nga jabuna ragal na faxu la la waaye nga def ko jaabinun ngir wane ne tey daal mu xëy dafa ragal ragal doon waaye tey daal moom ci lu bette bette rek dafa ragal wala zaydun jaasilun xadan muy sayid bu ëllëgee aji bég lay doon nga xam ne bégte moomu day nekk rek lu yees luy door a xew nga di ko nettali waaye du leneen lu mel noonu mën nga caa tëgg faaxilun ak kee waxal ne wa ma ana dit man jaasihun may aji tiit min rus in ci musiba wa in jàll ak doonte dijj na muy doonte rëy na wala faarihun te diir may aji bég bi suróorin ci bégte baax dama wëtiga ci gannaaw sag faatu daa am ko faatu woon mu di ko martial ne ko daal gannaaw sa faatu gi moom lu mbir rëy rëy du tax di mukk ma tiit waaye itam nag menn mbégte mënta amati ba bég boo seetloo jaasi xun jee mu ngi bàyyi ko ci jasiha te jasiha fahila bu lazim la boo seetloo fariha mu def ca farihun ba tey moom it fahila bu lazim la teewul mu def ca noona waji na nga dikkee wasnal mudaarihi màndaxe mudaarihuma bismi faahili xayri di salaasati ci sababu ismu faahilu lu dul boroom yetti araf laakin waaye joxe la defeef na awalan ci njëlbeen miimun miim tu damm kook def na ko damm lu ëpp ñetti araf boo ci bëggee tëgg ismu faahil am nag jàppandi mooy da ngay indi màndaxe mudaarihuma na nga ko xamee woon fa araf mudaarih wa nekk nga dagg ko teg fa mim gu dàmm la njëkk mujj ga bu fekkee kasara woon na say ba bàyyi ko noona dal koy tudd mu ismu faahil ma bu fekkee kasara wutoon nag nga kasara ko niki axraja génne na boo ci bëggee ismu faahil da ngay tëgg mu daarif ma yuxriju boo daggee yaaga weccee ko mim gu dàmm day fekk la njëkk mujj ga kasara woon na soo ko tuddee rek mu daal nekk muxrijun aji génne mu daal nekk ismu faahil add xala dugal na it boo defee yudd xilu dagg yaaga weccee ko mi mu daam mu soppiku mudd xilun aji dugal istaxraja boo ko defee yastaxriju daal dagg yaaga weccee ko mi mu daam mu soppiku mustaxrijun aji sàkkoo génne istaxfara sàkku naa jéglu boo ko defee yastaxfiru boo daggee yaaga weccee ko mi mu daam fekk la njëkk mujj ga kasara woon na mu soppiku mustaghfirun bu fekkee nag la njëkk mujj dafa fataa woon ni ki taxal la ma xamlu na ya taxal la mu lay doon kon boo bëggee aji xamlu gannaaw boo daggee yaaga weccee ko mi ngu dàmm laam nga njëkk mujj ga da nga koy soppi kasara muy mu taxal li mun aji xamlu te bañ koo bàyyi ci mu taxal la mun wa in fataxte ndeem fataa nga maa la nga xam ne qabla axirihi nekk na ci njëkk mu jëm saara mu mujj isma mafoolin di isma fool ni nga tëggee woon ismu faaxil ci lu ëpp ñetti araf boo bëggee isma fool ma la njëkk mujj ga nga kasaroon ko rek moom ngay soppi fataa boo ko fataa yow mu soppi ko isma fool ni ki arsala yónnee na boo bëggee wax yàlla mi yónnee mursilun aj yónnee lay doon boo bëggee wax yonante bi yàlla yónni muy mursalun kuñ yónni ba tey yàlla mooy muqaddimun aj jiitale yonante bi mooy muqaddam kañu jiital waaye nag day am béréb yoo xam ne maxnaama rek moo lay gindi waaye la njëkk mujj ga du neex xam ba xam dañ koo kasara am dañ koo fataa ndax bu doonee ku ràgg mel na ixtaara tànn na faaw rek ismu faahil ma ak isma ful ma ñooy bokk aw melo muxtaarun lay doon nga xam ne muxtaar mën naa firi aji tànn aji coobarewu mën naa firi muxtaar lu ñu tànn cosaan la nekkan muxtaya run ak mu nekkoon muxtayi run ñoo ci yemoo faaw rek nga ne arafu ràgg yu maas fataa jiitu ko war naa soppi ko alif te kon faaw rek foofu alif lay doon muy muxtaar ba tey su fekkee dañ koo lidd xaam muy mujj ga dañ koo lidd xaam ni ki muxtasun bàyyi koo ci ixtassa ba tey noonu la mu doonoon muxtasi sun ak mu doonoon muxtasa sun ñoo ci yemoo faaw dañuy jël saat bu njëkk yi sàdd ca ku ñaareel ga te kon doo mën a xam ba xam luñ ca doonoon waaye nag la max naa ma laaj rek moo lay gindi foofa waxad xasala am na moom isuma fool min si salaasati bàyyi ko ci borom yetti araf muttasi nan mbir mu muy aju tëggoo bil ma fooli ci ma fooli dalaa waxagutoon yetti araf boo ci bëggee tëgg isuma fool nu muy mel moom nag mooy nga def rek ma foolun ne ki daraba nga ne madrobun xatala nga ne maqtolun jaraxa nga ne majrohun xasada nga ne maqsoor muy wéy rek noonu lay mel bu doon faxe la it ni ki xalima xam na nga ne maaloomun jaahi la nga ne majhoolun muy wéy rek wamaa la nga xam ne ataa dikk na ka faayilin di mel ne faayilin fa huwa moom xat xuddi la jengeef na bii ak moom xanil asli bàyyi cosaan la mu ne nag miin nañu bi waree tëgg mafoolun ñu bàyyi ko tëgg ca faxilun te du tee faxilun ja di firi ne mafoolun lu xaw a bari la daañu wax xatilun ku ñu rey ay max naa maqtool daañu wax jarixun ku ñu jam ay max naam majroox daañu wax sarixun ku ñu narmeel amee max naam masroox daañu wax kaxilun ku ñu tusngal ku ñu tusngal ay max naam makxool kon nag daañu jengal tëgg ka bàyyi mafxoolun def ko faxilun mu daal di bokk ak moom prix wastaxnaw doyuloo nañu bi nax wi najan ci lu mel ne najan bi firi lu ñu fees lu ñu fees mooy lu mel ne aw der wu ñu fees ca jëmm ja wan nis yi ak nis yi bi firi lu ñu fàtte xan was ni ma foolin walis màndaxi ma foolin ba tey nee na daañu def bu ñu waree indi ma foolun mu nekk isma fool ñu bàyyi ko tëgg ca faxa lun mbaa fialoon lu mel ne najaa fees na aljilda derwa xanishaadi walis gàtt ba daañu wax fa huwa moom derwa najan lu ñu fees la te bañ a wax man juwun wax rek najan najan daal nekk faxalun nga xam najawun la woon araf rag maas fata jiitu ko war naa soob ko lif moo koy def najaa bu taariwul laa fut nga dagg alif bi maas ko yaari maas ko mu daal nekk najan kon jàppal ne daañu bàyyi mafhoolun far doyloo rek faxa lun te du tee mu bokk ak moom piri ba tey daañu def fi'lun rek mu daal di firi maanaam maf'ulun niki nisyun lu ñu fàtte xam nga nasiya fàtte na ashaya fa huwa man siyun la war doon man siyun lu ñu fàtte la cosaan la nekkoon man sooyun waxaan nañ la ko waral ba mu soppiku man siyun waxaan nañ ko ci tasrif daañu bàyyi nag man si yun lu ñu fàtte def ko nis yun lu ñu fàtte rek muy fi'lun gis nañ niqdun lu ñu toj naqada firi na ñu bañ wax man qod te wax niqd niqdun loolu dañ koy def wa ma hamila waaye nag jëfuñu ñoom ñaar maanaam kat boo bàyyee mafxoolun def ko faxalun niki najan mbaa fialun niki nisyun la nga xamoon isma fol daa ko jëf ñoom ñaar ñi duñ ko mën a jëf isma fol day jëf jëfi fixal boo tëgg jëme ci ma fol léegi nag ma fol la mën a jëf moom yaar yi mënuñu koo jëf yaar yi moom mën nañoo firi la ma folu di firi waaye mënuñoo jëf jëfam baabu abniyatil masadiri lii mooy buntu tëggi masdari walil masadiri ñeel na masdariya awzaanun ay tëgg ubayyinuha yooyu dinaa leen leeral ena masdar yi dañoo bari ay tëgg lool lool fali sulaasi yi ñeel na sulaasi yi maa li nga xam ne ubbuti danaa ko feeñal